salaamaaleykum salaamaaleykum cher internet yi ñuy seetaan ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di leen sant tey nag ñu ngi ñëw fii Somm ci benn euh, garage Jakarta arrêt Jakarta en même temps dañ fiy defal dañ fiy mbuuse wala ay Jakarta euh, ki ñu fi fekk si ñu ngi koy nuyu sëñ bi na nga def. ñu ngi leen fay bu baax a baax. di la nuyu di la jaajëfal bu baax turbi nan la. Mouhamed Diop. Mouhamed Diop Mouhamed Diop tey Thiès Info ñoo fi ñëw di la dalal di la bëgg a xam ci sa tolluwaayu liggéey ak sa liggéey nan lay demee. waaw waa Thiès Info. ñu ngi leen di siyaar bu wér a di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di bëggee sama gaay yi yëpp ci jotaay bi di bëggee fàll suñ patron tamit ñi ngi ci liggéey bi di mbuuse tamit di seerewaale moto fii am na mécanicien am na tamit mbuuse ñu ngi daal góor góorlu bu baax a baax waaw mbuuse bi moom benn sën boo xamante ne bi sawaay mooy ki nga xamante ne bi ki bëgg lum am la nit ki boo nekkee xale pour man da war a am ci loo jàpp loo jàpp mooy lan ñun ci mbuus yi lañ am mbuus yi ci la ñuy teral suñu waajur tamit ñu gëm ko lool mu nekk loo xamante dañ cee feer ñu ngi ciy am suñu teraanga lépp luñ ci am tamit ñu ngi koy bokk suñuy famille ñu koy bokk suñu waajur waaw. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñi ciy gis suñu bopp waaw. waaw ça dépend ndax mbuuse daa bëri ay qualité bu dee toile bu dee wàccaale bu dee wàccaale tamit ñu ngi koy mbuusee 15000 ba mille bu dee toile ñu ngi koy mbuusee 20000 ba mille njariñu mbuuse moom mooy comme tey euh, nga seere sa moto def entretien ba pare mbuuse ko wax dëgg yàlla bokkul ak moto boo mbuusewul ndax benn. dina tax client bi lay jël dina gën a am confiance ci yow dina tax tamit sa risque bu moto gën a neex waaw. waaw waaw say ñuy jël gaal gi pour man euh, xam li la war te mënoo ko moo waral lu bari xam li la war te mënoo ko boo déggee ma wax loolu mooy imaginel tey nga nekk ci këru famille lu mel ni këru fami nga nekk ci euh, euh, doomu diw mënal yaayam lu bari yow mënuloo sa yaay dara. tey dina waral ngay jël gaal gi mais nag pour man am na leneen beneen yoon bu ñu ko mën a fajee pas jël gaal gi ndax li nga nekk ci lum ndaw ndaw nga nekk ci gëm ko yàlla suñu borom jeexul day ñëw fekk si la man loolu laa gëm. man moom li ma leen di ñaax mooy comme ñu def comme man rek ni ma def waaw ñu toog gën gëm seen liggéey gën a fonk ndax liggéey boo ci nekkee rek boole kook jaamu yàlla incha allah léppay ñëw.

ndax man tuuma la nëbbu man Kaolack laa dëkk liggéey moo fi indi wax dëgg yàlla métier moo dem di ca salteel lu bon mënoo cee nekk ren ba déwén te du feeñ waaw ku ci nekk ci moto yi na nga sellal waaw fonk say waajur gën a gëm sa liggéey incha allah loo ci yootu rek da koy am mais boo ci nekkee gëmoo ko tamit danga ci nekk ren ba déwén doo gis avancement kenn ku ci ne moo xam nga yor moto moo xam ngay mbuusee ca la nga nekk gëm ko nga gën a góorgóorlu ndax def lu baax rek moo am solo def lu baax kese moo am solo ci kaw dégg li nga wax def lu baax moo am solo mais patente yi tamit sonal nañu Jakarta man de. waaw ci côté boobu pour man seen liggéey la ndax li tax ma ne seen liggéey la mooy benn moto ngay daw ba weer de benn 2000 ba ngay dem daggi ko juuti pour man yàqul dara sa liggéey quoi benn. weer ba ngay dem dagg juti yàqu sa liggéey nga am sa indépendance bu la neexee dem biir marché fu la neex dem mais daggoo jute benn 2000 tax bu la client fayee téeméer ne la marché doo ñimee dem ndax 2000 ya nga doon bañ dagg weer waxuñu la trois jours yu ne weer ba weer benn waxtaan ci seen biir moom pour man li ma gisoon mooy ñu ñuy daggaloo ay carte grise xam nga wàññil ñu ko defal ñu ko ay 25000 mais bu bëggee dagg carte grise 50000 dawal 2 mois jaay moto bi bëgg a dem daggewaat day métti bu ñu ko wàññiloon 25000 ah ba 20000 sa ñu mën a valable moto yi mën a valable comme ni oto yi valable man loolu laa gis de. Ah, waaw fii dañ fi créer emploi fii fii ah comme ñu ngi fi fekk rek am na ay ñu ngi fee 4 ba 5. waaw wax dëgg yàlla ñun moom ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax tamit eh, li ma ci gën a neex mooy suñu patron tamit Fallou mooy borom place ba léegi seen wax dëgg yàlla moom mu nekk koo xamante ne bii ku yàlla baaxal la koo xamante ne bii xol bi yaatu na trop sama gaay daal ñoom mooy loolu. fii moom bàyyi mooy daara ji xam ku bëgg lu baax teewal fii waaw atelier bàyyi mbenn ku bëgg lu baax teewal fii gars yi borom turi seel yi rek a fi ne Mouhamed xam nga Baye Mbène ñoom gars yi Bakar di sant ñëpp day wax ne leen lu waay jàpp tamit nga gëm ko lu waay jàpp tamit gëmal gën a fonk say waajur. yéen ñi ngi kontaan ci yéen bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax yéen da ngeen di yokk nit jom da ngeen yokk nit courage ndax nit bu nekkee ci liggéey rek ko koy ñëw di ko ñaax kooku mooy nitam wax dëgg yàlla sant naa leen gërëm leen. ah kon Mouhamed Thiès Info maa ngi leen di béggee bu wér a wér a wér kontaan ci yéen kontaan continué. salaamaaleykum salaamaaleykum cher internet bi ñuy seetaan ci seen site internet Thiès Info ñu ngi leen di jaajëfal bu baax tey nag ñu ngi ñëw fii som ci benn jaaykatu pièce moto mais moom la gën ko xam ci Fallou moom li muy gën di jaay pièce Jakarta Fallou ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay delloo siyaar wér. Sall di la sant di la ziar di la di la bu baax tey nañu ñëw fekk sa la fii sa bërëbu liggéeyukaay waaye dëgg la kay di la wax nan nga gisee nan nga gisee liggéey bi ba xam mi ngi dox bu baax waaw liggéey bi de moo ngi dox waaw moo yëngu bu baax mais moo ngi yëngu nànk-nànk su fa jëgataay moom waaw xam nga ñun ñoo leen si nekkal quoi ñoo leen jàppale ci yenn pees waaw suñu grand bu ñu ah, bu ñu indee pees yu baaxee rek ci la jël di leen ci jàppale waaw bu ñu xoolee pièce Jakarta ñoo fi ëpp doole pourquoi loolu noonu. waaw xam nga cees fii Thiès pièce Jakarta moo fi ëpp quoi ba euh, moto Jakarta moo fi ëpp moo tax euh, dañuy daal di yëngu ci pièce Jakarta ak ay décoration ak yooyu Thiès moom fii moom ay décoration ñun ci ñu gën a yëngu sax comme que ay pièces ak yooyu. daal bu ñu déggee sa wax a ngi ci gis seen ñoo ngi ci gis suñu bopp bu baax kay moom. mais Fallou tey boo yi nga xam ne ñu ngi jël gaal gi lan nga leen di wax. non su ma neen doon gisoon moom dama leen wax moom wax dëgg yàlla ñu toog fi taxale xëy na moo tane quoi géej gi géej moo wax dëgg yàlla moom li ma fi gis ni moom wax dëgg yàlla doy ma quoi te buñ munee tuuti xay na suñu borom ibbi yeneen bunt ñu mën ci gis suñu bopp quoi waaw man loolu laa gën a gis ku may digal quoi dama lay wax ne la nga toog Thiès toog toog Sénégal ci li nga am nga jàpp ci ba ci kanam xëy na suñu borom yokk yeneen xéewal ndax suñ borom moom du tëj buntu tëj parenteer quoi. ndax ñun ñi fi lañ nekkoon muy métti lool ñu yor ci suñuy jagarta di taxale ba tey suñu borom tey indi ay xéewal quoi mais lépp tëbuñu tëb dugg ci ay gaal wala ñu dugg ci leneen dañoo muñ rek xam rek suñu borom moom. kum mooy xol muñ xëy na boo fi nekkee di jàqale fukki dërëm ak juróom te bañ a yàqu quoi xëy na suñu borom jàppale la ci quoi. mooy ñu toog ñu jàpp fii mu defar bu ñu bëggee dégg dëgg parce que euh, wax am na chauffeur Jakarta yoo xam ne dañuy dawal Jakarta mais dañ koy mbëggoo parce que ñu ngi dawal Jakarta ñu ngi def loo xam ne naka sa noonu la ay ñaawteef yoo xam ne ñu ngi koy soulever dëkk bi yëpp moom la ñuy wax. waaw ñooñu tey nga leen wax. ñoo ñu moom wax dëgg yàlla ñoo yàq deru Jakarta ko ndax Jakarta man bari na ñoo xam ne moom dañuy fas jom liggéey seen liggéey amuñu kenn problème boo leen doon yónni banque jox leen xaalis teewul dañ la koy yóbbu ni mu waree. bu noonu la jox maanaam boo leen doon yónni leneen ak leneen muy xaalis muy lu mu mënti doon dañ leen la ko yóbbul ni ko bëggee ñëw verser la normal te du am benn problème mais di si am ñoo xam ñoo ci dugg di këf ay pochette di sàcc ah xam nga. loolu tamit rafetul quoi moo tax nit ñi tamit policiers yi tamit ñoom di def seen wargal quoi maam di leen jàpp ak yooyu mais xëy na bu ñu buñ xawoon normal tuuti rek dinañ leen may jàmm quoi man loolu laa gis quoi. lan nga jàppoon ni tey bu ñu ko gënoon a normal dinañ gën a waaw liñ leen di laaj mooy bu dee mën nañ ko am te duñ leen sonal ñu may leen jàmm quoi ñu liggéey mooy. bu dee dafa am ay kayit yu ñu la mën a woyofalal ba nga xam ni ndax chauffeur jagaraay moom dañuy taqale rek ñoom presque ñoom dañuy taqale rek booy liggéey ak ñoom sax nga xam ne ñoom yàlla ay jàmbar lañ quoi yàlla da leen dimbali rek mais ay jàmbar lañ quoi vraiment vraiment ay jàmbar waaw waaw man loolu laa gis quoi waaw amiin waay amiin waay ñoo ngi bég ci yow ñoo ngi bég ci Thiès info waaw oui kontaan nañ ci ñoom ñoom tamit moom ñoo ngi jàppale gars yi bu baax quoi vraiment yal na leen yàlla fay quoi ibbi yokk société bi